la ñoo ngi nuyu ñëpp di am mbégte ak contentement saa su ne ak waxtu wu ne comme ni ma koy faral di waxee ci lii parce que woote ñu wuyu si la dafa jafe di nuyu aussi di remercier ki nga xam ne mooy Demba Ngom di xaritu kenn ci Ablaye Sylla di bras droit Ablaye Sylla ki nga xam ne moo nekk Mbour nekkoon Mbour di coordonné Thiès Ziguinchor nekk ci liggéey bu mucc ayib Demba Ngom tey moo waral lu mel nii caravane bi déparé Mbour ñëw ba Thiès tey fekk suñu ñu dalal leen di ci am mbégte ak contentement bu baax a a baax a baax a baax di wax ni coalition président dafa ànd ak Abdoulaye Sylla caravane bii na ngeen gis tey caravane Abdoulaye Sylla la mooy ki nga xam dafa jug jël loxoom jël ay mbiram jël léppam damay jàppale coalition Diomaye président ñi nga xam samay frère lañ samay rak lañ dañ leen a fal Sénégal te damaa nangu ni ndogal xam ni yàllaay fale ma àndoon ak ñoom nag ma ànd ñoom ànd ak sénégalais yi dem ak ñoom campagne ànd fal coalition Diomaye président kon tey moom moo waraat moom Abdoulaye Sylla war di delloo njukkal ay partisans ñëw fii ci Thiès di delloo njëkkal ñi nga xamante ni bi tey ñoo ko jàppale ci coalition Diomaye président bi mu jiital ci Demba Ngom mu ñëw fi tey déplacé wu teewal ko fi